Modou Lo Balla Gaye waaw man nag Modou Lo la ah Modou waaw incha allah Balla taxaw na de incha allah Balla taxaw am la rek ah. incha allah dañ koy dugal dañ koy daal ah. grand naa def sant yàlla Modou Lo Balla Gaye loo gis man Balla 100 pour cent la ah. waaw mais grand Balla taxaw na de waaw loolu mooy géej am na ndox waaw Balla da koy daanaat incha allah borom da koy daanaat yow Balla nga Balla 100 pour cent mais Modou taxaw na waaw weddi moo ko dama koy nangul mais borom rab du seetaan dëpp maa la wax li naa def waaw Modou Ball ah ku daan baax na ñoom ñaar daal ay champion lañ. loo gis. bon physiquement man dama gis ni Modou Lo moo gën a baax. moo gën a taxaw. waaw physiquement quoi. moo gën man moom lool man affaire physique laa xam. Ah. affaire entraînement affaire physique laa xam. lamb grand Modou la de. waaw mu ne ah. mën ngaa daan sa mën. loo gis. waaw gëm naa ne nag man gëm naa Ball daana toog. mais Modou taxaw na de. waaw Modou taxaw na. Ah. taxaw na trop mais xam ku nekk ne xam nga ko la mën nag bu nekk day am benn noir. ok jërëjëf mais maa ngi waaw maa ngi maa ngi ay boo déggee ñu amateur ñii ñoo tax ay amateur vrai international mais grand Balla Modou Lo waaw loolu làmb la de njamdeef la de <laughs> waaw combat yi bu neex la ñoom ñaar ñu ngi si état bu baax mais <laughs> ah. ñu si kàttanu yàlla nag ñun waa Balla moo nekk suñu mbër mais Balla Gaye amatul luñ si prouvé ah. jël nañu roi des arènes gagné nañu leen ñu ngi koy ñaanal nag yàlla may ko ndam mais ah. combat bu neex yaakaar nañ si combat bu neex ñaari mbërëm ñu si état waaw xam naa le 13 moom ku teewul dem stade doo dugg mais combat bi yow est-ce que dina xeex non cokkaasay am rek. Ah. xeex bi du bëri. Ah. Balla Gaye du mbër buy taxaw di xeex. Ah. da koy lancé Modou Faye ko mu jublante moom ñu bëree. yow mooy am sax si làmb ji. jërëjëf sama góor sëñ bi. waaw Balla Modou Lo. combat bu naqaree pronostic la ndax Modou Lo ndaanaan la Balla ndaanaan la. te combat bi daal am na lu gars wax daal ponkal yi borom xam-xami lamb i dëgg na nan cinquante cinquante la mais man d'accord naa ne cinquante cinquante la lamb ji nag mën nga koo yor suba nu ngi ko si yow man nga ko weer tàkkusaan tisbaar nu ngi ko si yow. mais grand lamb joo gis am na favori grand combat bi lamb ji am na favori. non lamb ji man mënu ma see joxe favori man boo doon joxe favori sa au moins danga naa mudloo ndax booba ba ko Balla daanee léegi li mudloo defagun Balla defaatagu ko. waaw kon boo doon favori sa danga naa mudloo xañ mooy favori. waaw ndax moom instant bi dynamique bi mu nekk Balla nekku si ndax Balla bi mu jógee si jafe ba léegi. Gris Bordeaux la victoire par arbitrage yooyu comprendre te Modou boobu mi def ay dynamique kon da nga naan Modou sax mooy favori mais Balla ko mujj daan sama waaye ngoog grand Modou Balla. waaw ni def. Ah. waaw nee def waay. waaw Modou waaw en tant que coach. waaw waaw. noo ko gisee. ah bi combat bu doy waar ndax ndax dafa ne boo xam ne ah, kii di bi su gaawee. balaa ko moom mais si combat bi si diire Modou ko moom. Modou Lo moom lu ko ara Modou Lo Modou Lo ko arrangé ba rek mu dikk dal ko bala du baax bala tamit su ma doon moom combat bi mukk du ma du ma du ma may bi diire. waaw ndax su diire rek su diire rek bala day ñëw combat bi quoi parce que Modou mu Modou Lo du ko gën a compétir quoi. waaw jërëjëf gannaaw waaw rafet na mais maa ngi toog ak jantal euh, <laughs> booy borom tënkee mais sëñ Cheikh Cheikh bi sëñ sama sëriñ a ngoog yow Bal Moodu loo gis. waaw bëgg faale yow ñu lay nuyu uh-huh. euh, mu nekk euh, affiche. mais bu la fàtte nag kii mooy xaadim xaadim a ngi nii xaadim bu Ronaldinho moo nekk nii. waaw ñu ngi uh-huh. mu nekk affiche bu day waaraal. Uh-huh. lamb la joo xam ne man 40 à 60 laay wax. Modou Lo 60 Balla a 40. Modou Lo 60 Balla 40. Balla 40 man maa la ko wax. lu ko waral. parce que Modou boo xool moo gën a nekk ci compétition ka Balla Balla contre Gris Bordeaux bi fiy jugee am na lu wane mais am na lu des Modou dafa bëre euh, euh, dafa bëre premier mi-temps bëre deuxième mi-temps wanewul dara ay coono te Balla bi mu dafa wane ay kon moo tax ma ne 40 à 60 te lamb ji maa la ko wax fii ñoom ñaar ñëpp a décidé lamb ji du àgg deuxième ci première période bi fa la lamb ji di jeexee dina am xeex dina am bëre te maa la ko wax incha allah. waaw lambaloog moo wax mais sama grand. Modou Lo Balla bëgg faalu siyaar naa la ba baax. Ah. Modou Lo Balla Gaye ah. dafa nekk combat boo xamante ni. Ah. dama bëgg Sénégalais def ci attention. parce que yuuxu mën na jub fuñ ko foogewul. parce que ñëpp yaakaar nañ ne Modou moo ëpp doole. moo gën a nekk xale. daa Modou nag physiquement boo ko gisee am na doole. man mi di waxee yow Balla Gaye laa faral. mais Modou Lo physiquement am na doole. mais Balla Gaye moo mën a mettil combat bi mu metti mm-hmm. parce benn tey bu ñëwee taxaw woo Modou Lo ci xeex. te gëmu ko combat bi mën naa gaaw mais bu gëmee xeex bi combat bi mën naa métti parce que li ñu wane ci xeexu làmb Balla Gaye Modou ko dàq xeex mais na xeexu làmb ak takk gan dafa bokk xeexu làmb mën na ne xeexu mbedd la rek li ma ci ciy daal ci gàttal na deux zéro gaaw Modou toog di xoole analyse nag dafa yombut mais combat bi dax yow lu tax nga ne yi na gaaw li tax ma ne yi na gaaw c'est jël si revanche dafa metti parce que pression bi boo dee xool gars yi naan ci Balla mais ci Modou loo la ëppee parce que benn Balla Gaye am na roi des arènes Modou Lo amagul roi des arènes da koo tànte ñàkk ko ba noppi Eumeu Sène mi def Balla Gaye 2-0 Modou Lo da koo daan Modou Lo nag daan Balla Gaye la bëgg te Balla Gaye Modou Lo daan ko ak ku la yemale moo tax bëgg fàllu combat bi dàquma ci quatre appuis dàquma ci dóor mu daanu mais deuxième round séntu ma ko ci. waaw jàpp leen ci lomb lamb la koy wax Modou du 2-0. 2-0 grand Modou Ball. 2-0 grand Modou Ball. bu neex a pronostiqué ñaari mbër yu tolloo doole tolloo génération ma wax leen lenn combat bi gàllaaj du daan doole du daan Modou Lo boo bëggee daan Balla Gaye jox ko cër bul koy yàqamti bëreel moom yaa ngi dégg mais boo yàqamti me na ñàkk baña pare bala du feeñ ndax Balla bërët la am loolu la ñu am lu lay wax jëlal sa temps. sinon nag dina la 2-0. jërëjëf grand moo ah, père ñu ay doomu Balla Gaye lañu. Ah. Balla bii ma ndox du bàyyi yoonam. Ah. déggoo de 2-0 la koy def. waaw jërëjëf waaw kooku ay waxi amateur la waaw ama ñooñu ay amateur lañu ka grand Modou Ball. 1-1 lay doon. waaw kii nee na 1-1 la. grand Modou Ball. 2-0 Modou moo ko mën fuuf da may 1 kañ. 2 la. Modou ñun Modou Lo dañoo bég si moom. parce que chaque jour moo ñuy def mbër. Balla Gaye chaque jour Modou Lo koy waa gars yi gis nga ama affaire bu grave ngeen noonu waa ñu wàcc suuf